moo tax li mu am lépp bu ñu yaakaaree ne da ko am nii rek ci am naflaay dañuy nax suñu bopp ndax moom moo ñu waxal boppam ne maa ngi leen di yeekat ci ne ah coono bu bu métti boo xam ne mënuma leen ko misaal hmm, moom laa daj lu jiitu may am ngërëmul suñu borom nabaxtuko maan ala kaddin bada li qablu an ararida mu abada kon loolu lu lu lu lu lu leer a leer la loole itam ci la daan yare ba tax na mag ñi ñoom ñëpp dañoo kayo woon yitte sëriñ Mor xaris yi ca xikkamam ya daf daan wax ne euh, rikk am itte ci yoonu yàlla daal di wax ne yéen ndaw ñi fexe leen ba bu leen amuk jot mukk daal di wax ndaw lu amuk jot ku jóg jot ko teru jot kenn waaw moom sëriñ Mor xaris yi daana waxit na li tax euh, nee naa kuy wut yàlla foo fekk kuy wut yàlla bu talee bokk yee rek du am waaw daana wax ne jaam bu jaam bu wut boroomam ñu ne am mu ne talut moroomam te ku am boroomam yëgut moroomam kon mag ñi it ju kawe juj lay amoon ci wut seen borom ndax dañoo dégg waxi Sëriñ Tuubaa jam wax ne isil muridu la yuridu abada xayra rida rahmani ay su qasada ba mu ñëwee ba ba woopee wootee ba bañ ñëwi dafa leen wax ne ab murid kat warta yittewoo lu dul ngërëmul yàlla waaw moo tax ci anam googu la doon yar di tërbiyee tërbiyee gu métti rawatina eh, ba muy doog yo woote yoon wi ci Mbàkke Kajoor ak bi mu ñëwee Touba sancub Touba eh, dégg naa ci sëriñ maam moo war xam sa diine mu ne eh, sëriñ Balla May nee na sëriñ Abibu nee na ko sëriñ Abibu imaam nee na ko sancub Touba dafa métti woon ci mag ñi lool ndax daawuñu lekk tuuti lañ daan lekk naan tuuti nelaw tuuti daawuñ noppalu lekk ak naan ak nelaw ak noppalu daanaka daawuñu ko def loxub dugub moom lañuy jëfandikoo ak kubéeru ndox ba ëllëgati booleeg bay ak gor ak taxan ak jàng alxuraan ak jàng xasiida ak zikkar waaw bu ñewee sëriñ bi moo leen di jiite sikkar si nee na bu ñu nelaw nelawee tuuti ci guddi gi rek sëriñ bi daal leen yee ne leen pëkk pëkk ne leen jóg leen ne leen ne leen ne leen jóg leen àdduna kat lu jar nelaw nekku fi waaw àdduna kat lu jar lu jar nelaw nekku fi waaw nga xam ne coono yooyu nag tax na bis maam borom woo leen di sëriñ Maam moom soxna jaare woo leen di leen di leen ñaax ak di leen defal daal leen wax ne leen moom kat négut ba dajale leen fii di wuti lu leen añale waaye dafa am lu mu leen añale ba noppi doog leen fee dajale nga xam ne kon ñooñu ci coono bu métti ci lañ nekkoon moo tax tëluñu woon dara moo tax sëñ bay jaxate la muy wax rek di wax ne murit kat warta bëgg ci àdduna lu dus as cagar rek waaye warta yittewoo leneen moo tax ca waxam yu neex day wax ne ndaxam gaañi koo xam ne bàmmee la koy xalaw mujje seen nas cagar doy na ko ku doon dunde am ñax di tëddit kurang mu doy sëkk lii yàlla it xam na ko ñi am junni tey ak ñi am tànk yam ku ne ngi tawat te wutug dolli ko te foo seeru buur ak yëfam ak ñoñam ma ngay aajo lëf aajo kenn ñàkku ko te foo fekk kuy wax ne man sant naa da dis gor ne ñàkkul lu muy nemmiku te foo fekk it ab tawatkat du nit te dus gor loolul cant yow moytu ko mu ak cant gan lépp loo man di gis nangay ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na ngay sant xéewal di muñ jëpp lor ngirum gaay yi yàlla ngi ni soobu ko amaana nga gis gaay yi ñuy reeka bég di sooxaale ay lor yu dul teggi ko dañuy dox di nëbboo ko nëbbi tawat te koo gis ci ñoom mus doy na ko lu dul doy du doy nag te lu doy di doy murit mbubbu daal ak tubay doy na ko kon ñoom foofu fi la leen sëriñ bi jaarale woon te foofu la nekkoon moo tax ñoom tamit ah,